nataal fukk ak màgg na kom xale yépp di lekk di nelaw di fo mu jàng mbir yu bare ci dëgg-dëgg góor la woon waaye bu leen lii moom nekkoon na yàlla tamit amul woon benn xel bu bon ci yeesu moom ku mat la woon yeesu mosul bàkkaar bi mu amee fukki at ak ñaar yeesu tàmbale woon na di wax ay mbiru yàlla ak ci boroom xam-xam gis nañ ko fii ci ay biir biiri mag yi xam mbir yu bare ñépp ñu ko doon dégg jaaxle woon nañu ci xam-xamam ak i tontu yi mu doon joxe bi yeesu màggee mu ngi doon tàmbale di wax mbir yàlla ñépp muy wax lu tax mu ñëw ci kaw suuf mu bëgg a xamle naka la yàlla bëgg ngeen dunde mu ne tamit day joxe dundam ngir mag yi jigéen ñi ak xale yi te kenn soxlaatul def ay saraxu mala te yàlla baay bi dina nangu sarax ci yéesu di def ci nit ñépp góor yépp jigéen yépp ak xale yépp dinañ mën a rëcc ci mbugalu yàlla te dinañ mucc bu ñu nangoo yéesu ni seen musalkat